سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وتحمدونه على الإنعام والتوفيق للصيام والقيام فالحمد لله القائل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي, وفي الرواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله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 الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس هنيئا لكم في هذا اليوم المبارك يوم العيد السعيد وهل يفرح المؤمن فرحة أكبر من جزاء رب العالمين الجواب لا وفي الحديث الصوم لي وأنا أجزي به عباد الله لا تنسوا إخراج زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأمر بها أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كمن كمن صام الدهر تقبل الله منا ومنكم الصيام والتلاوة والذكر والقيام وسائر الأعمال الصالحات إنه مجيب الدعوات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 كل عام وأنتم بخير السلام عليكم بندر مبوكي إمام نينا السلام عليكم ورحمة الله نيونغ نيو جولدي ييب سي غور اك سي سي جيجين ñu ngi leen di baalu ak ñun suñuy côté bal na leen ak yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yal na yàlla nangul suñu jaamu yàlla ah def nañu lu rëy def nañu ndigalu yàlla léegi nag lu des mooy fayu yàlla moom subhanahu wa taala moom yàlla nag moom du fas kollëre ba pare di ko di ko tekki moom yàlla mooy jaam bi kay moom mooy wax dara ba pare di ko dindi waaye nag yàlla subhanahu wa taala su waxee dara soo defee lu mu ko waxee da nga fay fekk lu mu la dig loolu nag na nekk suñu muur ñu ngi nuyu mbooloo bi yëpp ñu ngi leen di wax déwénati ñu ngi leen di baalu ak yal yal nañu yàlla may ñu fekkee ay déwén yu bëri mu ànd ak suñuy sago ak sagu mboole mi jullit ndax sagu jullit mooy jàmm yal nañ yàlla defal jàmm ci réew mi yal nañ yàlla may jàmm biir ak biti yàlla yor jàmm ñu ngi koy ñaan yàlla moom jàmm jooju yàlla nañu yàlla jàmmal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nag ñu ngi sant mbooloo bi yëpp ñu ngi sant tamit suñu kilifa yi yal na leen yàlla yàggal suñu kanam may leen seen sago si mbooloo bi may leen seen sago si jullit yi may leen seen sago si réew mi yàlla may na leen sago seen sago si àdduna bi suñu amee seen sago rek ñoom kilifa yi seen biir sago si la ñu nekk ndax seen yéen yu baax yàlla nañ yàlla defal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات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 ñeenti téeméer di dem di dem ba mu mel ni di dem di dem ba yàlla indi lii di dem di dem e ñu ngi am yaakaar leneen tamit yal nañ ko yàlla indil li mu ñaanoon nag yéen tamit ngeen jàppale ko ci ñaan bi ah yàlla nangu na ko e wax alhamdulilahi rabbil alamin e ñu doon ñaan yàlla yal nañ yàlla yal na yàlla kattanal yal na yàlla may fan yu gudd ba kenn ku nekk ci ñun ba yàlla may ko fu mu teg bëtam te it xale yëpp no àdduna bi jaxasoo nii yëpp yal na yàlla jàppale ba xale yi ñu am yar ci yaru lislaam no yarutu yaru siraal mustaqim on yoon siraal mustaqim yo allah no yàlla def ay cadre yu bëri ci ñoom ah alhamdulilahi rabbil alamina am na lu ñu commencé am de yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla dolli tàmbale ci alhaji xaalidu mi xaalidu ceer neen mu ngi lay sant mu ngi lay ñaanal di la ñaan di la sàkku ñaan mooy këllëre bu mag bu ñu yàlla boole woon euh, papam bu mu leen bàyyi woon boo yokkul wàññi woo baaxal nga defaral nga rafetal nga noonu la war a mel nag bu fekkee yàlla boole na ay nit ci ndigal bu fekk ay xilifa ñoo ko def loolu mbir mu rëy la loolu lu mu tekki mooy bis bu muy xam papam moom Thierno Yahya Ba moo fa ñëwoon ñu woo ko moom Thierno mi mu ne na ñëw na ñëw nuyu Thierno Yahya Ba bi mu ñëwee Thierno Yahya kontaan Thierno Yahya kontaan bi Thierno Yahya kontaanee mu ne Samba Dulo mune sambo dulu, Dulo tey nak lepp loy soxla man ak tierno Basir soxlul nga ñu ut ki moy suñu kóolute boo ko gisee rek gis nga len papam japp ci ba mu jiituñu yo nga ñew wutu yo tamit yaqulo yalla dogal na tay ki la jégué fofu moy alaji saad samake نانا الحمد لله رب العالمين موم تامل بيس بيكو يال اندي سي دك بي سي غوخ بي مو فيكو ني في ньо بوك ندي بوك باي بيني غيسه ييب دانيو دونيو وقتان فرانسه دونيو وقتان اولوف دي بامبار رك لا نيو وخانتي ات بو نيك داي نان داف كو يوبو مالي دينا فخه مودام بابيل سبوغو مودام فك فوف اي مامام جيتوا عني بلاي مام خمنا فوف نعم نعم بوكليب جابوا سميب متأكد لو خشيرنا بفكر أملو في خو كرجيب دفلي مبليزة مو إندلين يلا نك يلا فيو كي كنا كبتهم ما يسوبهم خريتهم لا فكر خمولوان أي بوكلين ما الحج عمر با كونسي على بريسيدانس ñu ngi xamante ñu nekk ay xarit ba mu yàgg yàlla def benn waajuram bu góor ñëw fi waajuram bu góor bu dëgg bu ko jur ñëw fi mu indi ko fi ñu nuyoonante ba fa nuyoo yem mu ne yéen fi nekk maa ngi dem présidence di ñëw mu dem balaa moo ñëwaat e moom ak papam ñu waxtaan ndeke moom mu ngi ñëw kër ga fële ca koñ kaar dëkk ñoom Thierno tàmbale boobu ci daan mu ngi jàng foofu madrasa mu ngi doon ànd ak ku ñuy wax paate naggal moom ak ñoom caane léegi nag mu nekk mbokk kon nag Umar Ba yow tamit jërëjëf doomam la xaritam la ba njëkk njëkk moom xaritam rek la woon bis bu ñu xamantee nag ay mbokk lañ bis boobu loolu yokku mu nekk doomam mu nekk nit ku baax nit ku ku jar ku jar xam te ku dëggu la lépp lu mu la wax du tekki te tamit kuy dimbali la fi mu féete tàmbalee bi ko yàlla indee si réew mi ñi mu dimbali bu ñu taxoon fii kenn du xam ñaata lañu waaye li ko gën rafet ci moom bi mu nekkee Mali ci temps corona bi moom moo nekkoon sabab bi ba Ceerno ñëwaat fii ci Sénégal eh, moom moo nekk sabab bi ba mu ñëw fi eh, moom moo def laissez-passer spécial bu jóge présidence dem ministère de oh, mu jël otom oh, mu dem ba kii diira oh, moom mu jóge ba ma ko moom Ceerno ñu tase foofu fépp fu ñu egg comme ni Bokar Hamadoun Fara di ko waxee. Bokar Hamadoun Fara mooy wax. patron. pardon paas. noonu la koy Bokar di waxee. pardon patron pardon paas. patron. pardon paas. loolu yëpp nee na rafetu ko. daa fekk bët bu gisee yàlla. mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loo gis lu dul lu yàlla bëgg loo gis lu dul lu yant bi gis ndeke mu ngi def ay saaku miskit ba mu bëri ci oto bi fépp ku képp ku ñu romb mu taxaw mu nuyu ko bu ko nuyoo fekk mbokkam la mu jël saaku mu may ko boromam kontaan daa fekk ñoom loolu loolu dafa leen jafe mu mu jël loxoom dugal ko ci poos bi mu génne mu joxe bu ñu demee ba ci kanam comme noonu la am na ay yeneen dëkk mu ne nañ jàdd fi suñuy mbokk lañu bu ñu eggee foofu dëkk bi yëpp génn màbb mun ijam Umar foo nekkoon kañ nga ñëwaat Umar bëgg nañ ndox mu ne incha allah. عمر بغداني كوره موخ ان شاء الله الحمد لله رب العالمين بيب فني جارون موخ لن ان شاء الله تخاو نجي با يالا دفنا لول ولا بام ام تي ياكار فيف فني اغ مو ген خارج ببري تعملت امام بي با سي بروم دك بي مو جوخ لن مو نيرنا مو لن كو جوخ fekk xamul Ceerno xamul leen sax mu ne ñëw leen Ceerno ñaanal leen ñoom ñëpp ñu ñëw mu ñaanal leen mook Bachir mi ñoo àndoon kii mooy seede bi Ceerno eh, e mu ngi topp moom muy Demba Yaru Si Demba Yaru nag tàmbali bi leen yàlla boole e fii ci dëkk bi macha allah e moom ak njabootam ñu ñëpp benn mbir lañu doomam bu tudd Moussa moom la ko njëkk may mu jàngal ko alxuraan mu ngi jàng français ba yàlla may ko limu am li ko génnee dëkk bi mu dem France mu am fa doom mu tuddee ko Ceerno mi doomam jóge fi dem France xamul kenn mu nekk njaatigam ba tey ci moom la nekkal muy Ba Seydou lépp lu ñuy jëf fii këram mooy njëkk am këram moo ci jiitu kon nag dem weer si yow tamit jërëjëf te ñoom ñoo bokk dëkk ndax moom mbubb mooy seen cosaan ñu ngi jóge mbumba ñu dem dëkk bu ñuy wax jëwal foofu lañu jaare rom demee li ci mooy alhaji Chérif Niang kooku tamit ko mention spéciale ndax bi leen yàlla boolee ba yàlla def yéene bi ñu yoroon yal na ko yàlla yal nañu yàlla may juma moom moo nekk ci kanam juma bi taxaw fële première bi ñu njëkkee def juma provisoire bi ñoom ñaar ñoo ko ñoo ko ñoo ko rëdd eh, mu indi ñu somp ko mu ne ko jàppal Ceerno mu jël pikkam ak peelam muy gas boobu moom moom directeur travaux publics la woon directeur travaux publics ba léegi ba xool simisam maskur bu ñuul ak pantalon bu gris muy def ñoom ñaar ñoo tàmbalandoo laal foofu malaan wasifa ñoom ñaar kese ñoo doon wirdi foofu nit ku baax nit ko suufeel boppam lépp lu muy def ngir yàlla la koy defee kenn du ko yëg kon nag sëriñ yow tamit a alaji makaan gise ko tamit yàlla def mu ñëw mu dugg ci bateau bi bi mu ci ñëwee mu ñëwee nu mu rafete benn mbir su ko waxee loolu doy na ko ci tàggu ko gox bi yépp tànn ko na nekk président commission juma bi bu dul woon kóolute duñ ko ko def bu dul woon kóolute eh, eh, eh, duñ ko sax fàttaliku waaye loolu lépp ak mel noonu fajar mooy jiitu fi tisbaar bu tukkiwul foofu la bu dee takkusaan tamit naka noonu bépp luñ fi lépp luñ ci def bu ci jiituwul tamit du féete ginnaaw. ala di galoso mom tamit naka non ño nek bir ño nek ci biti ba yàlla dimbali ñu ñun ñep ñu ziyaarante ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem tamit ñu defandoo dawaaf ño ànd safa ño ànd marwa ño ànd muna ño ànd arafa ño ànd musdalifa ño sandu do jamra ba ñu ñëwaat fi amul do gi loo gis ci mom lo xamanteni dang ko koy xébé du waxam du jëfam ali Ba mi mu ko denkon xamna ali Ba ko net ku ku ku fasu la waaye mu tey ali Ba ba fi ñi nga ànd ci suuf ci suuf fii mooy Abdoulaye Abdoulaye Bari mom domam la talibi am la xaritam la. lu nekkoon sabab ba ñu xamante mooy Abdusalaam Njaac kooku moo ko indi ci moom mu ne bëgg naa nga sopp sama xarit bi nga téyel ma ko sama soppi bi nga nekk ak sama soppi bi mu ne Abdullahi kii sama mag la kii sama sëriñ la waaye sama xarit la bëgg naa nga nekk ci keppaaram tàmbale bis boobu ba bis bi tey anwaa rek aneer amul amul lépp lu ñuy defantul li fi neem jëf liggéey zaawiya bi lu bëri li fi nekkoon ci loo xam la nekk ba tey ji alhamdulilahi rabbil alamin li ci topp mooy alaji Cheikh Tidiane Ndoye Cheikh Ahmad Tidiane Ndoye Cheikh Ahmad Tidiane Ndoye alaji tamsin bay mële ci ginnaaw kooku moo leen boole coopérative habitat bi ñu yor bii loolu mooy sabab ba ñu xamante bu mu dugalee dossier bi dossier bi Tëngéej mu nekk fa ñeenti at wala ñetti at du buuse ba yàlla def Mouhamadou Mbengue bi ngeen xam mu ne Tamsir demal Tëngéej nga gis ku ñuy wax Cheikh Tidiane Ndoye bu ci yàlla àndee yàlla dina defar mbir mi mu dem foofu xefa xippi mu defal lépp mu réglé lépp mbay ne ko ni ma kontaanee ci yow dama bëgg ñëw nga gis suñu sëriñ moom tamit dëgërul bopp mu ñëw fi tàmbalee bi mu fi ñëwee ñu nekk benn mbir mu nekk nit ku baax ku mel ni moom bëriwul amul fépp fu ñu def àndul nañu Mali ànd nañu Mauritanie même fii nii nii su ma ko su ma ko waxee dañoo bëgg dem Cap Vert day téléphone këram wala mu wax doomam Babacar bi demal nga wax sa yaay maag Thierno dem nañ Cap Vert te it lépp lu mu yor bu gisee suñu benn soxla kenn si ñu mu ngi taxaw du wax day dem rek mu indi mu ne la am Cheikh Tidiane jërëjëf Chérif Chérif Diallo mii nag eh, ak bas ñoom Bachir ak ñoom Thierno Ibrahima la ak ñoom Thierno Bachir Ndiaye mun leen tagg bu leen taggee dafa tagg boppam rawatina nag ci Alhaji Amadou Ba male ki nga xamante ne jarbaatam la doomam la mbokkam la xaritam la ñoo bokk démb eh, ñoo bokk démb laata tey di ñëw biir ak biti kon nag su leen taggee daa mel ne boppam la tagg du fàtte nag alaji daam njaay kuñakaari buñ ko gisee te adduna bi ci wàllu télévision alhamdulilahi rabbil alamina moom moo ko njëkk génnee ñoom ñoo àndoon ak alhaji ñoom Duudu Fall ak ñoom alhaji Abdullahi Bari Lamine Fall ak Lamine Fall ak ñoom Lamine Fall ñu ñëpp ñoo doon ànd ku ñu kaay ku ses si moom nag mooy Alhaji Aliou Ndiaye Alhaji Aliou Ndiaye moom tamit ñu ngi koy sant di ko jaajëfal di ko ñaanal xamante nañ ak moom lu yàgg nekk nañ ak moom lu yàgg mu bëggal kër gi yëpp moom ak soxnaam soxna Béti Mbaye waaye nag mention spéciale daara bi moom directeur bi balaa moo nekk directeur bi moo nekkoon conseiller jamono yow mu ngi gouvernement bi bu mu ci mu volontairement mu jàppale yi at bu nekk ñu am 100 pour wala 90 pour 80 pour cent ci examen yalla mooy fay yàlla na ko yàlla fay ñi muy mujjee nag ñu mel ñoom Hamidou Bambado Alhaji Mouhamadou Samba ak Thierno Ban ñooñu moo ñoom ñooy moom mooy ñoom kii ñoo dugandoo uh, alquran benn bis kee ki Thierno ki nekk foofu télévision kooku ñoo bokk ndeeg baay kii kii Cheikh Mar moo leen ndax ñoom ñëpp dañoo demoon jihad fi sabilillah ñoo nekk doon foofu Cheikh Oumar nag daa fekk stratège la kër yëpp mu jël leen mu ne yow kër gi ak kër gi ak kër ge jàppante leen ngeen nekk benn mbir ngeen nekk ñoo xamante ne ngeen jongu di waaw loolu pulaar jongu di moom tekk ci olof yombul ah, ah. ngeen nekk benn nit daal كيف كان نسي يعني بدفع كان مير درا رك دايجيس واي لبلم لا دفر دايجيس تامين دمنا بام دم بام ياغ بانينا نيغي سي بو كان نكي دي في رك كان نكي دي فات في بالي مي كوني كار سن دك نيوم مو بولن اك شيخ مار بولن اك نيوم مو مسيمي حامد بامبادي مي مو بولن اك وا بوليس سو وانا بي اك نينن اك نينن تنيوم تمين بولا من النك بين مم شهمر شهمر موقف كي نقول تود نقول تود شيئا جب كي أتاو كو ولي يالله بمغلة لكن الإمام كوني كاري كن أبو فنيرات ولن تود يوكو شيئا جب بمغ الحمد لله رب العالمين كو كو موتا بحتا كوني كاري مو إمام شيئا تندقل شيخ مر ñooñu nag ñooy xeetam fii ci wàllu deret mu ngi sant yàlla di leen sant keroog Abu Job wax na te li mu wax tamit loolu bëri woon na ko wax moom Thierno mi mu ne nit ki bu fekkee nekk nga nit loo rafet rafet yépp di nga am yére foog nga am yére soo amee yére nag baax na waaye boo ci amee bi ci rafet moo gën a rafet tamit. mooy nit boo nekkee nit da nga ànd ak say mbokk nga am ay soppe nga am ay xarit yéen nag yéen ay mbokkam yéen ay soppem yéen ay xaritam tey tey yéen ay xeetam ndax lépp lu mu am ci yiw yéen a njëkk ci moom yéen a jiitu ci moom waaye yéen tamit lépp lu ngeen am ci yiw man maa jiitu ci yéen. bu fekkee kenn wax na day dal ci moom dóor ko balaa ñële di jóge fële di ñëw di leen di ko sotal ah dina metti de dina metti de waaye nag Ceerno Seydou Nourou nee na ñan ñoo bokk mu ne ñii di gisante ñoom ñoo bokk ñun nag ñooy gisee guddi ak bëccëg daay soo yoo tamit xale bu baax nga kelif mu kallaf nga ku mën a kullure nga li mu xam ci moom ak li li koy Bachir di wax ci moom xam lépp wax lépp yaa yàq lépp moom ci néeg bu rëy la bokk ci kër gu rëy la bokk moom ñoom jibukaa ñoo bokk lépp mu nekk xale bu baax tàmbale bi ko yàlla indi fi mu ngi nekk ay ñetti at ba ñeenti at yooyu kër gi daf ko téye daf ko këram képp ku mu xam ci ku baax ci service am wala mbokam daf ko indi fii nañu gisante ak Ceerno fekk ngir yàlla la nee na cooy ah, yow tamit ku baax nga ku mel ni yow yombul eh, ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ñu ngi lay sàkku ñaan papam sëriñ bu mag la eh, bu ñu demee Silla jongt ñu fekk foofu pap ji ñu fekk ko foofu nee na alhamdulilahi rabbil alamina góor gi ne ko bi yoon boo fi ñëw da ngay xool temps bu yaatu na nga xam ne ñu ñëpp sopp nañ la te bépp dëkk boo ñëw bu fekkee beneen dëkk bi yëg na ñëw nga dafay bëgg beneen at boo ñëwee nga ex si ñoom kon nag boo demee ñu ngi nuyu di ko ziyaara di ko ñaan di ko yónnee ñaan yàlla yàggal fii si kanama julliti daara bi nag tamit ñoom Cheikh Oumar Mountaga ñoom Baas ñoom ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin ñoom Cheikh Tidiane ñoom ñëpp Baba Galle moom amul kii la jur kii la jur déedéet ñu mu ñu mu jur sax dañ jegewuñ ko fa te xamuluñ ko dara ga Eh, jege wuñ ko xamaluñ ko waaye yàlla dimbali na ko nag ci ndimbalu yàlla ñoom ñëpp yàlla eh, defaral na leen ko kenn doo dégg mu ngi xeex doo dégg mu ngi saaga doo kenn du dégg ñëw leen wax ne diw ni def na fi dara ah, doo tasa kenn ci yoon nga gis mu am melo bu mel nga ne ko sandel mel ni walla defal nii am na ñu ngi ci day toog at du leen gis wala mu toog ay weer du leen gis waaye xelam mu ngi dal ndax kenn ku ñoom ku ci ñoom fu mu nekk moom xam ne na fi mu nekk fi ak lu mu nekk ci kawam su ko fa bettee du rus mention spéciale nag yéen ñëpp ngeen bokk ngeen dimbali ko jaaral sant rek daf ak borom këram ak euh, gorom bu jigéen ak seen yaay ak xeetam yépp bi yàlla defee ñu xamante ñu nekk ndoo nekk ngir yàlla may na ko ñaari mbir ba mu egg ñetti mbir ba ci ñeenteel mbir benn bu nekk yombul benn benn

waaye sax ci moo gën a jafe tukki am ak nekkam fi moo moom mu nekk fi wala Amadou nekk fi wala mu bañ a nekk fi loolu du dag li muy def day continuer rek loolu balaa ndox di fi am suba bu nekk day root siwo yi ay siwo yu bëri mu def ci glace mu teg ko fii taalibe yi naan ci jullit bu ñëw yëpp naan ci naan ci tuuti bu nekk kuy liggéeyam ñëw xool ba xam siwo bi jeex na wala jeexul bu dee siwo bi jeex na mu dem rootaat ñëw tegaat loolu yombul ñetteel bi ñeenteel bi mu ubbil ko bunt këram su mu fa yóbbu gan du tàggu day naan demal kër rek def sa kër la bu eggee ngeen nee jabootam ba ba léegi am na fay nekk spécial dem na dem na ba dem ba tuddee ko doom loolu tamit yombul loolu nag yéen ngeen dimbali ko wax ko jërëjëf démb démb rek magam bii bu mu bokkal ndey ak baay mu may ko mbubb bokk la yeneen mbir am na benn magam mu tudd Mamadou am na benn piliyaan piliyaan boobu moom moo ko jëndal moom tamit yoroon piliyaan bu mel ni moom moo ko may te su muy maye ceem day bañ ndax lépp lu mu yore woon day naa ne may naa nga def ko ci daara bi mu ne ko waa baax na waaye des ci tuuti mu ne déedéet lépp may ko yàlla mu téye man lépp yàlla gis na ko mu ne waa jël naa li man tamit delloo naa la li kon nag rek def jërëjëf soxna Béti Mbaye bu ko jaa ci jëfalee moom ak Aïssa jaa jëfal nañu jigéen yëpp ñoom ñooy lépp kon lii nag comme ni mu ko waxee nànk sànq du moom moo ko organisé Thierno Basir mii moo ko organisé fekk moom nekkul woon fi mu ngi génn ci moom moo ko wax fële. ñoom ñëpp nañ ñëw fii nga waxtaan ak ñoom yàlla xelal ko nag na ko waxee ndaani képp kim ci kum ko ci wax mu tudd turam yàlla moo ko dogal ki mu waxul kii mu ngi mel ne moom la gën a wax ku mel ñoom Souleymane Diallo ak ak ñoom Siraju li ki nga xamante ne moom ñoom Sirif Diallo ak ñoom Ibrahima Diadj. ak ñoom kone ñoom ñoo nekkoon léppam ba léegi ñooy foofu léppam kon nag Siraj tamit jërëjëf jërëjëf Cheikh Souleymane Diallo jërëjëf yàlla yàlla may fekkee ne gën a fekk ñu ngi yokk bañ a wàññeeku yàlla def suñu barke def suñuy jëf barke def suñu njaboot barke lépp lu ñu mën ren yàlla yàlla yàlla yàlla may mën lu ëpp loolu daaw. يال يعني يال داف جام سي ريومي شيخ ابراهيم لا سا خطبه باخنا سا خطبه رافنا سا وقتان تاميت الحمد لله غاتنا آه، واي امنا مانا ييب يال نغا ياغ جيتو ني نيب ني توب الحمد لله رب العالمين يال يا دافال جام دافال جولي ييب جام بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.